salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu koy dore ak transfert Iliman Ndiaye l'international sénégalais moom nag kayit xibaar yi dañoo génn tey di xam le ne Olympique de Marseille dañu ko bëgg a signé Olympique Marseille bu dugg nañu ci mbiru Iliman Ndiaye moom bi nga xam ne jamono bi waxoon nañu ne Everton dañu ko bëgg ba pare sax teg ci lu toll ci 20 millions de livres sterling ngir dal di koy signé fi mu ne nii nag ñoom wéetuñu ci mbir moomule ay jamono même club bu mel ni Newcastle United waaye tey Olympique de Marseille la ñu wax Olympique de Marseille bi nga xam ne bokk na ci club yi nga xam ne kii di Iliman Ndiaye doon rêvé ngir joué ci fa benn bés loolu moom waxoon na ko fi xam nga moom sax bi ngeen di bàyyi xel bi muy gën a nekk gone nekkoon na foofule wala te am na li nga xamante ne mooy yéene bés ñëw ma dal di fay football yi ndax jàpp ngeen ne waxtu bii la war a doon ndax Iliman Ndiaye kat bu ngeen fàttale ko club am ngi soog a monté ci English Premier te it mën na am chance ngir am ci yeneen club yu gën a mag waaye Marseille itam bu fekkee foofu la ca France la mën nañu wax ne bokk na ci club yi gën a mag ba sax bu ñuy bàyyi xel at yi ñuy commencé waat di jouer li nga xamante ne mooy Ligue des champions ndax gisu leen ne foofu bu baax la voilà transfert bu baax lay doon pour ngir mu war a dem jouer ci lu mel ni Ligue des champions wala boog dafa war a des foofu la ci Angleterre loo ci mën a dégg daal Marseille bëgg nañu ko fekk ci Everton ak Newcastle United foofu la ci Angleterre kon mbir moomu danañ ci dellu siwaat gannaaw loolu dañuy wax ci transfert ba tey ki nga xamante ni mooy euh, euh, Ilkay Gundogan moom nag dafa dal di dem foofu la ca Barcelone ki démb la déggoo bi am lépp dal di nay sotti signé rek moo des ak li nga xamante ni mooy voilà officialisé mbir yi dina signé contrat bu ko yóbbu ba deux cinq te it am na option ngir yokkaat beneen loolu mooy li nga xam ne kayiti xibaar yi biral nañu ko ki démb. lolu kon bir la mo xamne leer na da fay dem Barcelone Man City sax ñom signé nañu wala bok déggo nañu ak Chelsea ci transfert gi di Matteo Kovacic kon mo wara don ki kii ki ti gundagan Gundogan foofule voilà euh, Manchester City bu ki nga xamante moy kay havers momitam moom Arsenal ak Chelsea leer na 65 millions de livres la kay di xibaari xam la ne mom la ñaari club bi déggo kon ki di havers da fay dem ci Arsenal Arsenal nak dira mëna jouer Ligue des Champions ren Chelsea nak du jouer ji li nga xamante moy Ligue des Champions kon kay havers mën nañuy wax ne good move la ngir mu war a mën a dem foofu la ci Arsenal Arsenal rek équipe la boo xam ne moom dafa taxaw ba noppi ndax saison bu baax la ñu def te it xale yu mën a football ñoo ngi fa te gis nañu diggante daaw ak ren joueurs yu mag ñu ngi jóge ci club yu mag yi di dem Arsenal gisoon ngeen fi ku ci mel ni Zinchenko ak kii di euh, euh, voilà euh, Gabriel Jesus jóge foofu la ci Manchester City ñu gis tam ki nga xamante ni moom la ñuy wax Jorginho jóge Chelsea football ñu gisaat ki nga xam ne mooy Kai li muy wane mooy Arsenal fi mu ne nii yéeg na ca kaw ba tax fi mu ne nii amul benn joueur boo xamante ni voilà bëggoo am dem jouer ci club bu mel ni Arsenal rawatina nag bi nga xamee ne ren ji xaw nañoo gagné championnat bu Angleterre ba noppi qualifié ci Ligue des champions bi kon loolu mooy li nga xam ne da leen di yokk doole ngir ñu mën a am bépp joueur boo xamante ni bëgg nañu ko Kai Havertz kon moom moo mujjee ñëw te am na yeneen jour yoo xamante ni ñu ngi leen di tàggat Kai day dem foofu la ci nañu diggante ñaari club yi 65 millions d'euros wala de livres moom xibaar biral ne moo aju ci transfert ki nga xamanteni moy Alfonso Davies man na dem ci Real Madrid loolu kay xibaar biral ndax Bayern Munich mën nañu accepter li nga xamanteni mom lañu tuddé swap deal manam wéccio ci digënté Alfonso Davies ak ki di Ferland Mendy ndax kat ñi Real dañu bëgg jaay Ferland Mendy Alfonso Davies mom ba fi ñuy waxé nangugul prolonger contrat ak Bayern ta ben at képp ci dess ta Bayern bëggu ko bay manam mu dog fofu ba mu takki bagasam di dem fu ko neex comme niko David Alaba défé won motax ñom man nañu accepter swap deal manam wéccio ak Real ci ki di Ferland Mendy loolu nag mbir la moo xam ne bu dee am na xëy na war na mën a arranger ñii di waa Bayern Munich ngir ñu bañ ko mën a los fa prix ki nga xamante ne sax mooy Rafael ba ñoom Real euh, Bayern signé ñu ko ba noppi moom ab latéral gauche la kon ñoom ñu ngi waajal mbirum ki nga xamante ni mooy Alphonso Davies bu fekkente ne dafa jël jënga maam décision pour dem ñoom waa Bayern dal dinañu signé ki nga xamanteni mooy Rafael Guerrero mu jóge foofu la ca Borussia Dortmund xam ngeen transfert boobu moom sotti na ba noppi ak ki nga xamanteni ne mooy bi nga xamanteni moom nga jóge fële ca Red Bull Leipzig voilà waaye itam ñu nekk di tàggat yeneen ñaari jour muy Kyle Walker ak Kim Min Jae bi nga xamanteni ne moom jamono yi mu ngi foofu la ci dëkkam di def service militaire am dinañ wax ne loolu képp moo gàllankoor transfert bi kon loolu li muy wane mooy Bayern ñoom ñu ngi waajal seen bopp voilà tooguñu rek tegale seen i tànk di xaar kon Alphonse Davies bu dee dem na tam ki nga xamante ni mooy Rafael Guerreiro mën na jël place am tax moom ñëw na ba noppi te it ñu ngi wax waxi swap deal maanaam weccoo ak Real ci kii di Ferland Mendy mbir moom itam dinañ ci dellu siwaat Edin Dzeko moom jóge na Inter Milan dem si ñu fële nga xamante mooy ci Fenerbahçe ci Turquie moom Edin Dzeko nekk ancien attaquant bu Manchester City at yi mu nekkoon foofu la ci Roma jóge fa dem Inter ren ji gis ngeen ko ba ci final Ligue des Champions bi sax joué na kon daal dinay jóge Inter dem fële nga xamante ni voilà mooy ca Fenerbahçe bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi.